wàllum trafic migrant yéene kaay gi pen yi nga xam ne moo leen ci mën a fekk mën nañoo tëdd lu toll ci fukki ati kasa yéene kaay gi ñu xëy fekk fa maître Moussa Sarr mi nga xam ne mooy seen avocat daan wax ne dossier bi complot am na ca ba tey ci yéene kaay gi di réew mi quotidien Assane Samb xëy jël xalimaama ne nag am malaanu kiiraay loolee wurta tekki ne maanaam boo defee ay njombeeki tooxi doona waruñu la topp ndax député yi nga xam ne ñoo ngi leen di tudd ci lu jëm ci wàllum trafic passeport mel ni kenn waxul seen i wax te loolee nekk ci réew mi yéene kaay gi ne na ñi nga xam ne nag ñooy waa waruñoo protéger benn yoon député yi nga xam ne ñoo ngi leen di tudd ci lu jëm ci wàllum trafic passeport diplomatique yéene kaay gi di la turbine xëy dañu xibaar nañu député yi nga xam ne ñoom la ñu tudd ci lu jëm ci trafic passeport diplomatique jamono ji na xel dafa daal di teey ci assemblée nationale ndax nag yeex na lool lool ci li nga xamante ni mooy lever seen immunité parlementaire maanaam simmi leen ba ñu set wee ci jébbal leen yoon yoon def ci liggéeyam yéene kaay gi di enquête nee na Thierno mi nga xam ne moo tax kilifa ak si moo dem ca kasu ba moo ne Thierno Diallo moomee daal maanaam seen xarit la woon waaye nag xarit bu bon a ndax ñoom yàgg nañoo ànd yéen kaay gi ne na Thierno Diallo moomee nag dafa mel ni du koo xam ne ku jub ndax yàggul dara am na ñaari weer yoo xam ne tëjoon nañ ko ko ci kasu bi ci lu jëm ci wàllum sàcc te atum 2017 bi di enquête ne na woon nañ ki nga xam ne mooy Thierno Diallo ci lu jëm ci wàllum trafic migrant yéen kaay gi du l'observateur nee na assemblée nationale ñoom nag seen dër yàqu na ndax li ñu leen di tudd di leen lu jëm ci wàllum trafic faux pieds tey ñoo ngi tudd ay député ci lu jëm ci trafic passeport diplomatique te nag li nga xam ne moo jaaxal gars yi mooy noppi gi nga xam ne Macky Sall noppi na ko ci mbir mi yéen kaay gii di libération xëy ci mafia interne bu doy waar boo xam ne moo am ci banque islamique du Sénégal yéen kaay gi nee na ñuy liggéeyee ci banque islamique du Sénégal ñoom nag ñooy sàcc xaalisu askan wi nga xam ne ñoo fa am ay compte nee ma seeni client ndax Bounama Senghor mi nga xam ne mooy responsable opération banque islamique bi nga xam ne moo bi kooke nag am mandataire maanaam la ñu ko yan fu ñu ko jàpp daal di koy indi ndax moom mooy cerveau bi yéene kaay gi ne keneen ku ñuy wax Babacar Seck kooku mooy responsable des opérations ci banque islamique bi nga xam ne moo nekk Saint-Louis kooke section de recherche daal na koy teg loxo yéene kaay gi de la sa wax ci élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la ak Khalifa Sall mi nga xam ne ma ngi ci guddi gu bët si dëggu la ndax lu jëm ci xeex bi nga xam ne Barthélémy Dias ak Soham Wardini maanaam ñoo ngi koy xeexa ngir kenn ku nekk bëgg a jiite ville de Dakar ban taxawaay la ci Khalifa Sall yi amee kaay gi di réew xëy ci scandale bi nga xam ne am na ci recrutement cinq mille enseignants yi yéen a kaay gi ne na am na ay faux diplôme yoo xam ne nemmeeku nañ ko sa lu toll nag ci cent cinquante et un mille ci ay candidats ñoo déposé te nag cinq mille rek lañ ciy jëla yéen a gi di Dakar Times xëy dañu xibaara naan ñu di président Macky dafa ndóolal nag askanu Sénégal te rapport bi nga xam ne Banque mondiale fësal na ko loolee rek ma ngay firndeel ne Sénégal njaboot yi nga xam ne ñoo ndóolal dañuy gën di yokk te Macky Sall bi ñu koy dog di fal ci bopp réewum Sénégal bëri woon ay programme yoo xam ne Macky tegoon na ko nag ngir nag wàññi li nga xam ne mooy ndóol gi waaye nag comme ko ANSD waxee fan yi ñu génn rek ndóol gi dafay gën a yokk ci réewum Sénégal banque mondiale ñoom nag nee nañu bourse familiale yi nga xam ne Macky Sall teg na ko ni ab programme amul benn transparence boo xam ne maanaam am na sa dara leerul ci li nga xam ne mooy bourse familiale yi ni nga xam ne moo lañ koy séddale banque mondiale moo ko wax yéen a kaay di Sud nee na li nga xam ne mooy ndóol gi maanaam dafay gën di yokk ci Sénégal la nga xam ne nag moo ko waral bokk na si ñi nga xam ne maanaam ñoo ngi ci réew mi nekk ay ndaw te amuñu liggéey ñàkkum xëy gi nga xam ne moo nekk ci réew mi ma ngi mel ni tulleeg male dund gu cher ba maara détaal yi coronavirus bi dikk ak nag salaire yoo xamante ni la yàlla xam doy na yéen a kaay gi ne na lu jëm ci wàllum dool gi mbir mi nag ma ngi gën di yokk fi nga xam ne mooy Ndakaaro may sa ba bu di ab économiste nee na nag bu ñu waxante dëgg mooy état bu Sénégal dañoo lajj ci politique sociale bi nga xam ne moom lañ digoon askanu Sénégal yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñi nga xam ne ñoo bokk ci parti Pastef te nekk ca Touba ñoom nag nee nañu dikkuk Macky Sall ci Touba duñu ko yuuxaloo tey duñu ko yuuxaloo ëllëg waaye nag dafa am ndaw yi APR yoo xam ne ñoom ñoom mer seenu mer bëgg a yuuxoo Macky ba pare nag bu ñu ko yuuxuloo ñoom waa Pastef la ñu ko bëgg a tuumaal loolee moo tax ñoom ñuy alerté yéen kaay gi di alerte xëy duñu xibaar naa ñu nag ndigal li nga xam ne sëriñ bi joxe na ko ne bu kenn yuuxuloo Macky Sall kan moo ñemee nag violer ndigal loolee nga xam ne sëriñ bi joxe na ko ki osera violer la ndigal du xalifa samplaaj yéen kaay gi di Le Quotidien ak las xëy duñu xibaar naa ñu lu jëm ci wàllum foncier ca diwaanu Diass niki démb moo tax ay jàppante yu métte métti am na fa dox diggante te askan waa ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi bëri na ñoo xam ne teg nañu leen loxo ndax dafa am lu toll ci 31 hectares boo xam ne état bu Sénégal daf koo jël koo jox waa APIX loolee na askan wal nangu wuta yéen a kaay gi di esat xëy diñu xibaar naa ñu Ligue des champions Paris Saint-Germain ni ki démb dafa témboo benn ball yéen a kaay gi nee na mboolem star yi nga xam ne Paris am na ko ñoo ngi woon ci terrain bi ni ki démb waaye defuñu a kaay gi nee na Liverpool ni ki démb nag dafa dafa mujj dëpp carte gi match bi doon dox digganteem ak Milan Real Madrid benn ball ci dara la def Inter de Milan yéen